inna kamaala siyaami wa tamaamihi huwa kaffu ljawaarihi ani asaami wa zalika bi sittati umuurin hiya ñu yëg na ñun ñëpp man ak yéen ñun ñi woor bokk na ci liy matal sunu koor bokk na ci liy baaxal sama koor di baaxal seen di baaxal ñun ñëpp sunu mooy kaful jawaarix mooy téye sunu cër yi téye sunu cër yi aar ko ci lan anil athami ci bépp bakkaar ñu téye cër yi ci bépp bakkaar naka lañ koy defee ci juróom benni mbir juróom benn buñ ko peegee aar ko sunu koor day baax yooyu ba ca jiitu mooy raddul basor sajj sa xef mbokk jullit yi ku woor di dund ci réew mu mel ni Sénégal lii tax sa koor baax mooy ngay sajj sa xef ndax xam ngeen li nekk ci mbedd mi sajj xef yi bañ koo guddal topp di xool lépp lu la romb wala lépp loo gis nga fexe ba li ngay xool muy dugg ci sa xol na ko yokk ngëm ndax xool ak xol dañoo ànd xool ak xol dañoo ànd loo xool rekk direkt ci biir xol bi la jëm kon fexeel ba li ngay xool muy dugg ci xol bi muy lu yokk xol gi ngëm bañ koo wàññi mbokk yi yonent bi nee na xool ci fetti iblis la bokk yàlla wax na yenent bi alayhi salaatu wassalaam ci quraan yow yonent waxal way gëm yàlla yi nañu sajj seen xef woy gëm yàlla yu jigéen yi nañu sajj seen xef kon bokk na la ci li lay dimbali yow sama mbokk jullit tomb bu njëkk boo xam ne boo ko toppatoowee nga aar ko sa koor baax mooy sajjal sa xef ñaareel mooy xifzul lisaan wattul sa làmmiñ wattul sa làmmiñ ndax làmmiñ musiba la boroom xam-xam yi sax dañuy wax ne làmmiñ graaw gimu mu garaaw moo tax yàlla utal koy ñaari kubiir ba ca jiitu mooy bëñ ñaareel bi mooy tuñ balaa bëñ di ubbeeku balaa tuñ di ubbeeku ñaar yooyu di benn di ci ubbeeku xoolal li war a génn ci sa gémmiñ lii lan la mooy tandikul jëw mooy tandikul rambaaj mooy tandikul fen mooy tandikul lu ñaaw mooy tandikul wax wax joo xam ne ku ko dégg na mm. ngalawaay ci weeru koor lañ nekk toqol noppi soxla làmmiñ bi tudd yàlla ak jàng alquran ak wax wax ju baax mbokk yi sunu buggee sunu koor baax ñaareelu tomb mooy foog ñu téye sunu làmmiñ yi ñetteel mooy kafu sami anil isra'i ila kulli makruh nañu saañ nopp yi nañu fatt nopp yi nañu tëx ci déglu lépp loo xam ne duñ ci jële kontaante yàlla lépp loo xam ne bu duggee ci sa nopp bi te doo ci am ngërëmal yàlla fexeel ci weeru koor gi bul ko déglu nanu fexe bu nu déglu lu yàlla araamal déglu musique ak la ca aju déglu ay wax yu ñaaw déglu wax yu bon déglu ay léeba ki lëppoon yoo xam ne amul benn njëriñ nañ ko moytandiku ci weeru koor bi mbokki jullit yi nanu góorgóorlu ñu déglu lu ñu amal njëriñ ndax sunu borom mu ngi wax ci alquran sammaacuuna lil kazibi akkaaluuna lis suxti yàlla ba muy xas yahud yi dafa ne yahud ay fen lañuy déglu ay lekkatu ger lañ ak akkaaluuna la wax sammaacuuna ay déglukat lañ lil kazibi ay fen jullit du ba ngoon di déglu ay fen julli du woor ba ngoon di lekk ger luñ ger nga yóbbu ko di ko ndogoo yaag sa njaboot yàlla nee na lan moo tax ñi gëm yàlla ba ñu gisee ñii di def lii lu taxoon terewuñ leen lawlaa yanhaahum rabbaaniyuuna wal ax wal axbaar an qawlihim al isma wa aklihim suxta la bisa ma kaanu yasnaun suratu maida aya 63 yàlla mu ne lu terewoon nit yàlla yi ba ñu gisee ay nit di diglu ay fen ay caaxaan yoo xamante ne dara amu ci ay mboosóor la ci Sénégal rek ngay gis kilifa diine bu naan man damay diglu musique ci Sénégal rek ngay gis kilifa diine gu taxaw ci kanamu télévision taxaw ci kanamu rajo naan man damay déglu musique wala ci Sénégal ngay gis kilifa diine gu naan diw woyal ci Sénégal ngay gis kilifa diine gu toog ay nit di fecc ci kanamam ba juutu ko Sénégal da nga koy gis yal nañu yàlla soppi yal nañu yàlla taxaw ñeenteel bi mooy kaf baqiyatul jawaarih ba nga moytandikoo téye bët nga téye làmmiñ téye ay nopp téyel yeneen cër yi loxo ci la bokk tànk ci la bokk biir ci la bokk fexeel ci sa weeru koor ba loxo bu mu laal lu moomut fexeel ba tànk bu mu dem fu araam fexeel ba biir bu ci dugal lu araam fexeel mbokk yii nga aar ko boo ci boo ko aaree di nga mucc juróomeel laa yastaksir min altuaami alxalaali waqt al iftaar même bu fekkee ne sax li ngay ndogoo ci weeru koor ndogu bu dagan la fexeel li ngay ndogoo na dagan fexeel li ngay ndogoo mu dagan su daganee it bul ëppal fexeel sa kemtalaayil kàttan li ngay lekk li ngay ndogoo muy dugg sa biir na dagan ñaareel bi tamit bul ëppal ci ndogu gi ndax danga war a naafila danga war a taxaw jaamu yàlla boo lekkee lekk gu bari dana la sonal ba doo tere naafila wala booy naafila doo xam ni ngay naafila wala di nga gàttal jàng mi wala nga gàttal taxawaay bi wala nga gaawal rukkoo yi wala nga gaawal sujjóot yi parce que dootoo ci bëggati dara bu biir bi feese kon fexeel nga lekk lu yem ba nga naafila ba pare soo mënee lekkaat nag bu fekkente ne aajowoo nga ko nga lekkaat mbokk jullit yi juróom benneel ci yi ngay aar sa koor baax mooy an yakuna qalbuhu baada al iftaari muallaqan mutarriban bayna al xawfi wa raja fexeel fi nga ndogoo fi nga ndogoo ba bala ngay tëdd sa xel na dem ci yaakaar waaw man li ma doon war yàlla nangu na ko wala nanguwu ko nekkal ci diggante tiit ak yaakaar tiit ndax nangul nañ la yaakaar nangul nañ la allahu akbar fexeel ba saa koore ba ngoon ba nga ndogg neel tekk diir xalaat ndax li nga doon def yàlla nangu na ko wala nangu mbokk yi xoolal xool leen xiif ni méttee nga woor ba ngoon fekk yàlla nangu ko bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi say bànneexi bakkan ba ngoon nga defe ne am nga tiyaaba ndeke yàlla nangu la jël na sa koor teg fële ca mbalit ma wallaay mbokk yi musiba weesuwul lii kon juróom-benn mbir yi suñ ko aaree ci bëccëgu weeru koor amaana ne yàlla mun na nangu suñu koor aar suñuy bët aar suñu làmmiñ aar suñuy nopp aar suñuy cër loxo yeeg tànk yi ak biir bi ñu bañ a ëppal ci lekk gi ñuy ndogo ñu fexe ba saa yi ñu ndogoo ñu nekk diggante yaakaar ak tiit yaakaar ndax nangul nanu tiit ndax nanguluñu ñu ñaan sunu borom jalla jallaalu wa azza kamaalu borom màgg borom asamaan ak suuf boroom kun fa yakun mu teggil ñu mbas mi nga xam ne moo lottal àdduna tey moo tiital àdduna bi moo terroriser doomu aadama yi yow yàlla jalla jalaaluhu azza kamaaluhu yow yàlla sonn nañ yow yàlla yal nag ñu wàllu yow yàlla yal nag ñu taxaw yaa murisu arisna yaa murisu arisna yaa murisu arisna yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin allahuma rahmataka narju fala takkilna ila anfusina tarfata ayn laa ilaha illa anta subhanaka inna kunna min alzalimin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh